Salut les amis de eSport TV, merci encore gars de la confiance renouvelée. Hein. Merci de vous aider like, merci de vous aider abonner gars. Merci également de bailler les commentaires. Un plaisir au les chaque fois de partager des informations. Sénégal Sénégalais, fait fou le maintenir hein. 14 régions du Sénégal, au Kouroukhari, Gorgohar, nous l'avons dit du feu. Nous sommes également chez l'hôpital de sécurité de février, nous sommes borom feu sen bok ngi rek yam ñi nek ci kasso yi xamni aussi erreur judiciaire ak guindal ñu def ñu leen mo leen fa yobbu suñu borom gën nous fa del war del seen jabot ñi du dal non suñu borom xalen aljana fi do ci gay te yi ñu on avance ensemble dans la match de eSport TV l'actualité en continu gars yi actualité bi nag gars yi ñu fas yéene waxtaanee di nouvelle boo xam ne gars yi ñu bëri tey dinañ daanu syncope wala noonu la demee wax ci mbiru Sadio ak ngi soog a leer ko waxoon nag mi ngi soog a leer Sadio Mané day donc du côté la war a pour def visite médicale bu fa jógee nag ñi euh, nga semaine prochaine mu daal di fekk ñi nga xam donc Cristiano Ronaldo loolu nag la gars jàpp accord bi nag wax naa leen ko donc mi ngi doon tourné ci diggéen diggante donc 30 ba 37 millions de d'euros donc euh, loo xam ne moom lañ ko fasiyene yéene tegal ci table bi Sadio Kaiser magnifique Mané bi nga xamné gaay yi bon voilà aujourd'hui nak mi ngi soog a yi wax nañ di wax ki yépp waxoon naa bu information yi leer rek dinañ leen ko jox donc jappalé né donc Sadio Mané day dem donc fa nga xamné donc ci Al Nassr donc visite médicale am nag bu semaine bi, ni ni ni ñu nekk ni fin de semaine bi la wara dem ci Dubaï dal di fay def li nga xamné donc euh, visite médicale mais tout dal di rejoindre nak équipe bu ñom Cristiano Ronaldo maintenant nak choix choix euh, sportif le choix de de voilà de de l'argent mon boobu de toute façon lu mënti am on rek Sadio Mané bu mënti tànn euh, ñun dañ koy suy topp ah, donc ma donc ñu bari tay buñ sañon du jugee Bayern ni mu Bayern et tout mais c'est ça la vie ah, am na fu mu toll xamné également euh, Sadio Mané aujourd'hui il a 31 ans

ak également ñi nga xam ne nag mooy donc ñii di waa Al Nasr loolu nag leer na nañ waxoon naa leen ko information bi nag sénégalais yi ñoo ko njëkk a jot et donc bokk na si loo xam ne nag te gars yi di wax rek c'est dommage aussi pour la carrière de Sadio Mané dans une certaine mesure mais également c'est une bonne continuité donc mu dem fa ni ko yenn copains di waxee ci groupe bi ah yenn abonné wax na dem lekk xaalisam quoi ci la tollu et tout donc voilà mu bañ a toog ban dem foo championnat boo c'est un championnat exotique mais ak dama ñoom Sadio Mané ak euh, Karim Benzema ñoom ñi euh, nga xam mooy donc ñi fa nekk hein, Kanté Cristiano Ronaldo et tout euh, il pourra respirer il pourra également retrouver Ben championnat boo xam ne gars yi dinañ ko fa jox gëdd jox ko fa nga xam mooy taxawaayam nekkoon information bi ñu bëggoon toujours plaisir de vous servir à hein. leen like leen on avance ensemble dans la magie de sport TV Sadio Mané Al Nasr visite médicale prévue cette semaine à Dubaï